laam-laamee bi nga xam ne moom la ñuy laam-laamee ne Ousmane Sonko dañu ko bëgg a teg loxo loolee tax na ñi nga xam ne ñooy ay farandoma jamono ji dañoo daal di taxaw tem rawatina sa diwaanu Ziguinchor guddi gi ca buntu kër Ousmane Sonko la ko gaay yi di amale journal bi nee na veille dëgg la gaay yi nekkee nee nañu Ousmane Sonko kenn du ko laal yéene kaay gi nee na Aïda Mbodj di Malick di Cheikh Tidiane Dièye ñoom tim ni ki démb jóge nañu ci Ndakaaru dem ci diwaanu gi di Vox fa Alioune Tine daal nay wax ne lu dul jàmm loo xam ne war nañu ko moytu ci réew mi maanaam deret ji di tuuru ci réew mi loolee war nañu ko moytu jamono ji li nga xam ne moo war a am ci réew mi maanaam ñu def pause daal di apaiser di waxtaan ngir mën a dem ci ab dialogue ñi nga xam ne ñooy farandooy Macky Sall yi war na ñoo def pause waaye tamit ñi nga xam ne ñooy farandooy Ousmane Sonko yi war nañoo def pause ndax réew mi ñoo ko bokk te dañu ko war a waxtaane te am na loo xam ne war nañu ko moytu kaddu yu la ma ngi ci Vox Populi yéen kaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu àtte bu Ousmane Sonko ak Adji Sarr suba ci talaata ji la waaye nag soo moytuwulee tension dina am ma ne la tension bi violence bi fin ji jamono ji ma ngi xeeñ ci réew mi bi xëy sampab laaj nee na Ousmane Sonko ndax dina wuy ci yoon yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas 48 heures yi nga xam ne moom la ñu dëgmale boo muy tuwale dina tàng jër ci réew mi maanaam tey jii ci altine ci xam ne Ousmane Sonko dafa war a dem ca kanamu greffier ba jox ko ay garantie na suba ci talaata ji dinaa ñëw teew te Ousmane Sonko bu deful loolu mën nañu ko jàpp loolee moo tax journal bi li mu jàpp mooy tey jii ci altine ji ak suba ci talaata ji boo muy tuwale mi nar na yëngu yéenekaay gi de Le Quotidien yor yor xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy patriotes yi maanaam farandoy Ousmane Sonko yi ñoom jamono ji dañoo taxaw tem ngir nag protester ngir ne mooy seen leader di Ousmane Sonko ak projet bi nga xam ne teg na ko ngir réew mi yéenekaay gi di bés bi xëy fësal ne sigi coora sous tension yéenekaay gi de Le Peuple ñi nga xam ne ñooy waa APR ñoom nag jamono ji li ñuy sàkku ci état bu mu jël ay matukaayam jël ay responsabilité ma ngir nag aar askanu Sénégal waaye tamit aar seen moomeel yéenekaay gi de La Tribune ni mu procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko ab complot ak ab dossier boo xam ne bu vide la un mardi à haut risque maanaam suba ci talaata ji lenn lu nekk mën naa am ci réew mi journal bi ne na ñoo ngi nekk nag ci diggante dàq audience bi ak teg loxo Ousmane Sonko te nag bu boobaa maanaam ay yëngu-yëngu mën naa am rawatina sa diwaanu Ziguinchor waaye tamit sa diwaanu Bignona journal bii de la point ñu xëy fekk fa Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moo jiite ndaw ñi bokk benn bokk yaakaar ci département bu Bambey daan nay wax ne dara du yëngu dara du ci réew mi te état bu Sénégal dina jël ay matukaayam Ousmane Sonko ak taxawaay bii nga xam ne amee na ko loole nag firndeel na ne moom ab rebel dëggantaan la kàddu yu Mamadou Ndiaye la nee na njiitu réew mi di président Macky lu mu man def na ko ngir nag jàmm am ci Casamance waaye nag jamono ji ñi nga xam ne ñooy rebel yi commencé waat nañ seen na ngir nag défendre seen candidat bi nga xam ne dafa signé ak ñoom ab accord ngir nag jox leen indépendance bis bu gàñee ci réew mi Ousmane Sonko tuuti na loola ngir nag andi ak pëccëxoo ci réew mi kàddu yu Mamadou Ndiaye la ma ngi ci le point nee na état bu Sénégal du a deltu ginnaaw du reculer te Ousmane Sonko dina wujji fukki fan ak juróom benn ci weeru mai ci àtte bi dox digganteem ak Adji Sarr mu neex ko ak mu ñàkk ko neex maanaam par force général Moussa Fall mi nga xam ne maîtrisé na lool zone bu Casamance jamono ji ma nga fay def ab liggéey boo xam ne war nañu ko bravo yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar nañu ay négociation am na diggante état bu Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy way fipp yi maanaam waa MFDC accord de paix lu ëpp ñaari téeméer ak juróom fukkuy combattant yoo xam ne wéer nañu ngàndaay yi ca diwaanu jàkkaay yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa bi daat nay wax ne man li may conseillé Ousmane Sonko mooy mu dem wu ji yoon ndax yàgg nañoo woo ay kilifa ci réew mi ñu dem wuy ji naam nag Ousmane Sonko bu amee ay xiini mii na ci wàllum justice bi na dem rek wuy ji ndax am na avocat yoo xam ne maanaam yu xarañ lañ bu dee nag Ousmane Sonko nee na dañu ko complot jamono ji li nga xam ne moo ci waara mu dem ci kanamu yoona daal di défendre te nag li nga xam ne gis naa ko ci réew mi soo moytuwulee ay confrontation ay jàppante dina am moom maître Amadou Ali Kane daan nay wax ne li nga xam ne moo amoon ca diwaanu Côte d'Ivoire ci atum 2010 dafa mel ni ci tànk yooyu ci la Sénégal dox di way yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor ñu xëy fekk fa maître Doudou na ko xoolee xoor ko la yéen kaay gi de las ñu xëy fekk fa am sud société bi nee na le pays va mal nee na li nga xam ne gis na ko jamono ji maanaam tiis na doy na waar lool te raglu na moom am sud société bi yéen kaay gi de Direct News xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñoo bokk APR te nekk ci diwaanu Paris la France ñoom nag nee nañu Macky Sall mooy seen candidat ci élection présidentielle 2024 journal bi nee investir nañ ko ci rassemblement bu mag boo xam ne amuloon nañu ko samedi ji nga xam ne moom la ñu génn yéene kaay gi nee na ca Paris gën gaa gàtt ca ndaje lu ëpp ñeenti junni ci ay nit teewee nañu ko ñoom nag nee nañu Macky Sall jamono ji daan nay remplir mbooleem li nga xam ne ay condition la ngir nag mën a wéyal liggéey bi nga xam ne maanaam door na ko te nag Macky Sall joxaat ko réew mi bu baax a baax waa APR ñi nga xam ne ñoo nekk ca France te amuloon fa am mobilisation yéen i kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar nan ñu bu dee am na ñenn ñoo xam ne ànduñu ci lu jëm ci troisième candidature bu Macky Sall mooy sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew ci diaspora bi yéen i kaay gi de Le Quotidien yor yor nee na waa diaspora bi sénégalais yi maanaam amal nañu ay mobilisation yoo xam ne maanaam yu jéggi dayo la ndax sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu France amuloon nañu ay mobilisation ay rassemblement ay doxi ñaxtu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Allemagne di leen di feelu sénégalais yi nekk ci diwaanu Belgique ñoom tam wane nañu seen ñàkk ànd ci troisième candidature Macky Sall yéen kaay gi nee na yokku ci Sénégal yi nga xam ne ñoo ne ci diwaanu Suisse ak ci diwaanu Suède ca Gambie ca Mali ak ca Cap Vert journal bi nee na ñi nga xam ne ay sénégalais lañu nekk ci diaspora bi ñoom nag nee ñu ànduñu benn yoon ci troisième candidature Macky Sall waaye nag yàq nañu ko musiba ak mbelengaan nee nañu ko bul laal Ousmane Sonko te nag sénégalais yi maanaam woote nañu résistance yéen kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu ngor ba léegi njaw ma ngay wéy xam bi na ndax askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ngor maanaam nguur